Touba dëkk bu sell bi Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke moo ko sanc ci atum 1888 ngir jaamu boroomam jàng ak yar teg taalibe ci yoonu siraatal mustaqim ni nga xam ne noonu la ko jàngalee saa su ne muy liggéey ak jaamu yàlla jaamu yàlla googu sax moo taxoon mu am yéene taxawal fi jumaa ju mag joo xam ne mbooleem jullit yi dañ fiy daje di fi jaamu yàlla suñu boroom di jumaa ji nga xam ne bokk na ci yi gën a taaru ci àddina bi yéene taxawal jumaay Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàgg na koo am waaye jamono bi muy nekk ci njaareem ci atum 1926 ci la ñu tàmbalee dox ngir jëmal bëgg-bëggam gi ñu sas taalibe yi kenn ku ne ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ngir mën a door liggéey bi ca jamono yooyu ñu jotoon a dajale lu toll ci juróomi million ci sunuy koppar. ci at moomu ba léegi di 1926 ci la Serigne Touba sant rakkam di maam Thierno Birahim ngir mu ñëw Touba taxawul liggéey boobule. ak gëstu lu jëm ci carrière ndokk bi nga xam ne fa lañ jëlee xeer yi nga xam ne moom lañ def ci jumaa ji ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar atum 1345 ginnaaw gàddaay ak yonent bi salallaahu alayhi wa salaam di 1345 1927 Serigne Touba bàyyeekoo fi wujj suñu borom xalifaam bu njëkk muy Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacke sóobu ci liggéey boobu nga xam ne moo nekkoon bëgg-bëgg waajuram wa ñu tàmbalee sóobu ci bërëb bi nga xam ne fi lañ war a samp jumaa ji ci 1929 ñu door liggéeyub raay bi nga xam ne moo bàyyeekoo njaareem ñëw ci Touba ndax bokk na ci infrastructure yi nga xam ne mënul woon ñàkk ngir liggéeyub jumaa ji ndax mboole matériel bi nga xam ne moom lañ war a liggéeyee ci lañ ko war a jaarale mu ñëw fii fi Touba. liggéey bi àgg ci 1930 Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacke dugg ci train bi ànd ak taalibe yi ñëw fii fi Touba ci atum 1932. ci ndigal loo xam ne sëriñ Mbacke bu so jotoon na ko ci sëriñ bi ci la jublu ci li nga xam ne moom moo di xiblaal jumaa ji maanaam natt ko fexe ba jumaa ji jublu penku. ginnaaw bi ñu daggee garabu bébb gi nga xam ne moo nekkoon fii fi jumaa ji nekk tey ci lañ daal teg xeeru njëkk wi. tegu xeer woowule ñu ngi ko amal ci le 25 mars 1932 ci jamono bu métti lool. ak crise des années 30 bi nga xam ne moo amoon ci àddina bi. taalibe yi soobu ci liggéey bi ànd kook Cheikh Mouhamadul Moustapha biñ demee ba ci atum 1940 liggéey bi daal di taxaw 1945 liggéey bi dooraat ci at moomu sax ci la fi Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke bàyyi ko wuy ji suñu borom. jamono boobu liggéey jumaa ji demoon na ba toll ci fenêtre yi. Cheikh Mouhamad Fadal Mbacke nekk ñaareelu xalifab Serigne Touba ci atum 1945 mi ngi dooraat liggéey jumaa ji ci atum 1949. wéye la liggéey bi ànd kook mboolem taalibe yi ba ni nga xam ne noonu la liggéey bi àggee mu inauguré ko ci aljuma dëppoog le 7 juin 1963 liggéeyub jumaa ji nag ci jamono boobu jotoon nañ cee dépensé lu toll ci 677 millions 648 mille 838 francs CFA. ñu liggéey jumaa ji ci superficie boo xam ne maanaam yaatuwaay bi di 8790 mètres carrés mënoon a jëlit lu toll ci 5600 personnes maanaam lu toll ci juróomi junniy nit ak juróom benn téeméer yoo xam ne mën nañoo jullee ci biir jumaa ji ñu liggéeyoon ko ci juróomi sooroor bi ci gën a mag ñu naan ko làmb fal ñu xayma woon ko ci juróom fukki mètre ak juróom-ñaar ñaari sooroor yi nga xam ne ñoo féetee penku ñu xayma leen ci fanweeri mètre ak benn ñaari nga xam ne ñoo féetee soowu bi tolloo woon ak ñeent fukki mètre ak juróom. jumaay Tuubaa ji su weesoo jullikaay bi am na institut islamique maanaam bërëb boo xam ne dañ ciy sàkkoo xam-xam am na it daaray kaamil di bërëb boo xam ne dañ fay jàng alxuraanul karim loolee di ndigal loo xam ne mi ngi bàyyeekoo woon ci Cheikh Ahmadou Bamba. bis yàlla sàkk daañu fi jàng ñeenti kaamil ñaar ci suba gi benn ci tisbaar ak benn kaamil ci tàkkusaan gi loolee nag ba bisub tey ji ñu ngi koy wéyal ci penk jumaa ji fala la barabu Cheikh Ahmadou Bamba nekk ak daaray kaamil ji nga xam ne moo nekk ci jumaa ji mur bi nga xam ne moo dox diggante fi jumaa ji yem ak daaray kaamil ak barabu Serigne Touba bi di mur bu mag boo xam ne yaatoo na benn meetar maanaam épaisseur benn meetar barabu sëriñ bi ak mihrab bi toll na ci fanweer jàpp fanweeri meetar ak juróom ba léegi diggante daare kaamil ji nekk ci jumaa ji ak mihrab bi diggante bi noonee la toll jumaa ji nga xam ne moom la cheikh Mouhamad Fadel Mbacke inauguré woon ci atum 1963 bëri na liggéey yoo xam ne dolliwaat nañ ko ci ginnaaw bi ci xilaaf ak cheikh Abdoul Ahad Mbacke ci la ñu yokk jumaa ji ci jamonoy sëriñ Saalihu Mbacke mu yeesalaat jumaa ji gën koo méngaleeg jamono El Hadji Bara Mbacké Falilou moom it bi mu doonee xalif général des Mourides am na liggéey yu yaatu yoo xam ne def na ko ci jumaay Touba ji ba ci Cheikh Sidil Mokhtar mi nga xam ne yeneen ñaari sooroor yi nga xam ne moom lañ dolle ci jumaa ji moom moo ko ci def ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou mi nga xam ne jamono bii mooy xalif général des Mourides ñu koy ñaanalaat mu gën fee yàgg lool te gën a wéex ndax yitteem yépp mooy wéyale liggéey yi nga xam ne moom la fi kilifaam yu tedd ya bàyyi woon lii di lenn ci ak leeral gu ñu leen indiloon mu jëm ci jumaay Tuubaa ji liggéey bi fi mu jaar ba agsi fii ak lii di jumaa ji ak fi nga xam ne fa yem daañu ñëwaat ak yéen ci yeneen i ponk yoo xam ne moo jëm ci bërëbu sell bi nga xam ne moo di Tuubaa rawatina jumaa ji ngir ak leeral jëme ci mboolem jullit yi rawatina taalibe yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.